mbokk incha allah ñu ngi war a jël tey aaya bu jëkk ci suratu naba amma yatasaaluun إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أرتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا فجنات بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون سني بروم مني مونيوم لوني لا جنتي عن النبأ العظيم تنيجي لا جنتي ci xabaar bu màgg ba alladi hum fiihi muxtalifuun xabaar boobu nga xam ni nekk nañ ca di aji juuyoo kalla sa yaclamuun waaye déedéet day xelse nañoo xam summa kalla sa yaclamuun gannaaw ba déedéet xelse nañoo xam alam najil alam najalil arda mihaada ndax defuñu suuf muy nekk lu ñu leen lalal waajal leen ko mu mel ni berceau wal jibaala awtaada ndax defuñu montagne yi ñu nekk ay piquet yoo xam ne ñoo téye suuf ba du tasaaroo wa xalaqnaakum azwaaja ñu bind leen yéen ngeen nekk ay peer wa ja'alnaa nawmakum subaata ñu def seen nelaw yi mu nekk lu leen di dalal wa ja'alna layla libaasa ñu def guddi mu nekk kiiraay di loo xam ni da leen di muur da leen suturaal wa ja'alna nahaara ma'aasha ñu def bëccëg muy ab dunduwaay wa banaynaa fawqakum sab'an shidaada ñu tabax ci seen kaw juróom ñaar yoo xam ne yu ñu dëgëral la wa ja'alna siraaja siraajan wahaaja ñu def ab lamp ab lamp boo xam ne wahaaja ma ngay nekk di boy di takk ak takk te mooy jant bi wa anzalna min al mu'siraat ñu wàcce jële ca niir ya nga xam ne ñoo fees dell muy mu'siraat yay waaj a taw maa an sajjaaja ndox moo xam ne ma ngay sotteeku sotteeku bu tegaloo sajjaaja li nuxrija bihi xabban wa nabaata ngiree ñu génneel leen ci ndox moomee lii di am pepp ak gàncax wa jannatin alfaafa ak jardin yoo xam ne dafay gëndaloo mi ngi noonu mbokk gis nañu saar bi ci saar yi gën a siiw ci alquran la bokk ndax mooy juzu bu mujj ci téereb yàlla bi bi téereb yàlla bi nekkee fanweeri ajza juzu amma moo ci mujj moo tax mu siiw ca nekkoon it ci saar yi wàcce makka nga xam ne seen jubluwaay mooy xamle kenn ku yàlla ki saxal yonent yàlla bi saxal la nga xam ne mooy dekk yowmal qiyaama suñu boroom bi mu yónnee ab yonentam mu wax leen ne leen yàlla kenn la alaxira am na loolu yéem na yéeféer yi lool ba ku nekk di ko laaj sa moroom moomoom dégg ngeen li Muhammad waxe te annabi mooy kuy indi naba dégg ngeen li Muhammad waxa ca mooy nee na yàlla kenn la sunu yàlla yi du dara nee na àllaaxira am na ci loolu ñu daal ci juyoo ñii ne ah juyoo bu njëkk ga mooy ñàkk koo gëm waaye gannaaw ba ñoom seen biir ñu juyoo ñii ne daa dof ñii ne ab woykat la ñii ne fen imaam yu jëkk yee lay nettali waaye suñu borom mu ne xalsa nañoo xam ay bis bu ñu yegg see ca naba bu mag boobee di àllaaxira gannaaw ba xalsa nañoo xam di tëkku bu yàlla yi tëkku ay jaamam sa doom bu defee dara nga ñëw na ko nangam nangam xaaral ba ma ñëw da nga xam suba baa loolu war na ko tiital borom bi commencé di wax kàttanam ndax yéeféer yi kat ñoom la tax gëmuñu àllaaxira mooy nit ki bu dee day nekk poussière kan moo ko mën a dajale wat di ko dekkal suñu borom mu ne waaw xanaa du suuf si maa leen ko lalal mihaada mbokk suuf yàlla bu ko neexoon da koy def benn bloc d'acier ngi noonu benn bloc d'acier nga xam ne foo teg sa tànk tarxiis dem doo ko mën a gas doo ci mën a bay doo ci mën def dara su ko neexoon it def ko comme ndox yi ni mel nga xam ne boo tegee sa tànk mupp tax dem ci suuf waaye suñu borom moo ko équilibré doomu aadama man ci dox sans problème man ci bay sans problème man ci samp ay étage am mën a gas ay teenam loolu lépp suñu borom moo ko def ci suuf soosee mu wutal ko ay montagne mu nekk ay piquet boo gisee naar yi defar ay xayma xayma yi dafa am ay piquet yu ñu koy tiiree samp ko mu téye ko ndeyjoor càmmooñ ñu ngi noonu ba nga xamee ni ngelaw bu ñuy du ko yóbbu suuf soosu it daw gi muy daw yëngu yi ci am montagne yooyu suñu borom def ci ay chaîne de montagne yoo xam ne noonu mu nekk ci kaw noonu la amee lu leen relier ci suuf moo tax ba suuf di tasaaroo borom bi dañu woon kàttanam ba tey yéen ñépp ci ndox ngeen commencé et pourtant day maa leen xaaj def ñuy góor def ñuy jigéen ki jël benn ndox bind génn góor bind génn jigéen walla ci benn ndox mi mu génne ci ñaar kii di góor kii di jigéen ñu ay cheikh juddoondoo ku góor ki amul dara ci luy jigéen di am ku jigéen ki amul dara ci lu góor di am loole nekk kawteef yi suñu borom yàlla def bokk na ci lu ñuy suñu borom waxit mu ne ndax seen nelaw yi defuma ko subaata subaata mooy loo xam ne day dagg seen coono ay kon da leen di dalal mbokk doomu aadama da ngay ñëw gëmmintu ba doo mën a xool sonn ba doo mën a taxaw bu la yàlla wërsëgale ab lal nga tëdd fa cinq heures de temps wala huit heures de temps boo jógaatee gis ne ngëmmintu ba dem na coono ba yépp dem na kan moo rocc loolu ci biir nelaw yi muy suñu borom jalla wa ala boole kawteef bi ngay nelaw sa ner yépp reposé noonu la sa la nga xam ni mbàq gi moom accéléré ab liggéeyam loolu tax ba boo jógee ci nelaw daanaka doo xalaat lu dul dem tuur ndox boo jógee ci nelaw day fekk digéré nga li nga lekkoon lépp même boo reeroon ba suur tëdd boo yewoo soxla ndékki li lépp xéewal la gu yàlla di def ci ak nelaw mu doon loo xam ne nii daf ñuy dalal loolu it moo tax ba suñu borom yàlla waxtu nelaw boowee gis nañu ne mu def ko ca guddi nga lépp di dale ngir doomu aadama gën a mën a reposer ba boo demoon tey ci milieu du travail ñi nga xam ne dañuy liggéey guddi dañ leen di wutal ay prime mooy prime de nuit ndax seen nelaw yooyu nga xam ni moom la ñuy perturber donte ni daan nañ ci profité mbokk fukki fan yi ñu nekk fa lillahi alhamd am na ay mbokk yu bari yoo xam ne guddi gi dañ koy taxaw duñu am jotu di ko nelaw ci bëccëg bi lañuy for tuuti di nelaw léeg-léeg it am na ay mbokk yoo xam ne jazaahumullahu xayran jaamu yàlla mu leen di indi ci néegub yàlla bi waaye ngal la waay boo nekkee ci néegub yàlla bi xalaatal ne yow nelawoo mi am na ñuy nelaw su ko defee jël sa téléphone di téléphoné mbedd maag ñëpp di dégg mbokk loolu ñàkk a xam teggi ni dëkkandoo la ci lislaam ubbi sab kaamil di jooru di jàng fa sa kaw ñàkk a xam teggi ni lislaam taal sa portable mu jàng alxuraan yow nga toog di déglu ñàkk a xam teggi ni lislaam mbokk loolu jaaduwut doomu aadama yi bu ñu dajee ci mbooloo la gën a tedd li ñuy def mooy jàng alxuraan yonente bi alayhi salaam danaan dugg ci jàkka ji gis kay di tari ki di tari mu ne hey ku nekk ci yéen day déyoog boromam sa tari yeme la ko sa bopp loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax ngal na waaye bàyyi leen xel ne fukki fan yi ci bëccëg yi nit ñi nekk ci jàkk yi dañuy soxla nelaw waaye même bu dul jàkka ja mbokk li xew Sénégal ñu dem ba onze heures ba nit ñi bëgg a commencer fëgg seen lal pour nelaw nga gis koo xam ne moom mi ngi fëgg micro a'uzu billahi mina shaytaani rajim commencé yuuxu bokk loolu jumte mënul passé loolu suñu borom moo ñu defal guddi pour ñu war koo nelaw kenn warul le perturber doomu aadama yi ci loolu moo tax même ñi jàng alquran mu ne wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha bu koy kaweel ca kaw ca bu koy denc ñu ne li ko war a lool omar ibnu xataab la yonente bi alayhi salaam romb këram ma nga yuuxu di jàng alquran ca kaw bi ñu xëyee suba yonente bi ne ko waaw li nga doon def omar loola ci xiir mu ne xanaa bëgg yee caamin yu sàggan yi rek ànd ak man mu ne ko déet bul defati loolu suñ borom nag wàcce ci aaya almuhim kon ku nekk ci ñun di bàyyi xel moroomam lu ci am solo lay doon borom boobu mu ne maa def guddi mu nekk libaas na am guddi moo ñëw muur bëccëg daal di koy lëndëmal doomu aadama bi doomu aadama bi mën a rocceeku ci guddi def loo xam ne ñu bari duñ ko xam duñ ko mën a xàmmee tubaab yi dañ koy léebu ñu ne pendant la nuit tous les chats sont noirs ala kulli xaal da nga mën a rocceeku def loo xam ne sutura la te loolu yéen gone ndakaaroo xamu leen ko waaye soo demoon tey ci àll bi jigéen ñu bari guddi ba guddi la ñuy dem douche xatta jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam guddi lañ daan roccee ko pour dem douche ndax ci àll bi rek ngay dem te bu dee bëccëg a foo toog un kilomètre ñu ngi lay gis loolu kon suñu borom moo ko def libaas muy kiiraay boo xam ni nit ñi daan ci mën a tëj seeni buntu man caa wéet amma bëccëg yàlla ko def dunduwaay bu bëccëg jotee sunu borom accéléré suñu neer yi mu yeewu mu daal di génn ab jantam mu leeral ñu ngir doomu aadama yi mën a dem sàkku ji loo xam ne ni dañ koy dunde borom boobu mu ne ci kattanam la tabaxe ci suñu kaw juróom-ñaar yu dëgër muy juróom-ñaari asamaan yoo xam ni mbokku asamaan suñu borom nee na banaynaaha bi aydin ci kattan lañ ko tabaxe ca la chaque ne yéeme na lool bokk na ci loo xam ne tiim na ci asamaan boobu rek suñu borom mu ne maa cee def ab làmp muy jant jant boobu nga xam ne wahaaja te ni ko alquran waxee dañ demee ba scientifique yi di ko observer lañ gis ne ndikati ci jant bi ay explosion moo cay am yoo xam ne nii répétitif toujours mi ngi exploser exploser di génne des milliards de ay mégawatts yoo xam ne yàlla moo ko xam looloo tax mi ngi ñu dàll à cent cinquante millions de kilomètres teewul day lakk suñu suuf si bay rey doomu aadama yi loolu suñu borom yàlla def ko muy loo xam ne ëpp na suñu jant bi plus suñu suuf si ñu toog plus deux millions de fois jant bi ëpp na ko ko loolu kon suñu borom mu ne asamaan lu tar la moo ñu xéewalal jant boobu nga xam ni la ëpp suñu dund ca la dépendre yow jullit xamal ne bu fi jant bi jóge woon vingt quatre heures suuf nekk bloc de glace li fi nekk lépp dee borom bi subhanahu wa taala mu ne maa wàccee jële ca xiin ya ngi noonu asamaan xiin ba ñuul kukk chargé des milliards de mètres cubes suñu borom yàlla génne ca ndox moo xam ne nekkul luy bëmbax suñu kaw benn yoon ne kon dana muur étage yeeg ñëpp deewandoo waaye mu mën a xëy suba di taw ba ngoon bal di taw pendant deux jours bal mën na tegale trois jours sax di ko taw ñu naan taw na cent millimètres cent vingt millimètres loolee suñu borom wàcce ko ak wàcce di xiiwal goo xam ne moo ko def ndox moomu nii na ci la génne pepp bu doomu aadama yi dunde génne ca gàncax gobaay yu ma yuy dundee te loolu it mbokk xam leen ne ndox mooy génne gàncax tool bi sa maam doon bay maamam doon ko bay at mu nañu génne ci ay tonnes de gerte ay tonnes de dugub lu tax tool bi xóotul ba mel ne teen amul benn changement lu waral loolu mooy suuf bi moom mi ngi intact ndox ma nga xam ne moo ciy wàcc moom mooy la nga xamee ne nii mooy génne gàncax googu yépp loolu ci xéewalu borom bi subhanahu wa taala borom bi mu ne noonu it lañ ci génnee ay jardin jardin yoo xam ne dafay gëndaloo te loolu di xéewalu borom bi subhanahu wa taala nga mën a dem ci benn jardin fekk fa lu ëpp téeméeri façon garab boo xam ne benn bokkut ak sa moroom noonu ñu seen dàtt ya sore ca suuf bañ demee ca kaw seen branche ya daal di gëndaloo muy nekk lu taaru lool ñeel doomu aadama yii yépp ay xéewal la yoo xam ne suñu boroom moo ñu ko defal jalla wa ala bismillah
inna yawma al-fasli kaana miqaata yawma yunfaxu fi s-suuri fata'tuuna afwaajaa وفتحت السماء فكانت أبوابا فسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بارك الله فيك suñu borom mu ne inna yawma alfasli kaana miqaata lii di bisu teqalee ba day bisu atte ba kaana miqaata nekk na ab rendez-vous bu ñu fixé ba pare yawma yunfaxu fi suur mooy bis ba ñuy ëf ca béjjén ba fata'tuuna afwaaja da ngeen dikk nekk mbooloo yu tegaloo wa futixati samaau fa kaanat abwaaba dees na ubbi asamaan mu nekk ay bunt wa suyirat aljibaal des na doxloo montagne ya fa kaanat saraba mu nekk loo xam ne ab jeneer lay doon nekk mirage boo ko séenee nga jàpp ne lu nu ñumb la fekk poussière kese la inna jahannama kaanat mirsaada lii di sawara jahannam dana nekk benn ëkkuwaay li taaxiina maaba ñeel ñi jiggi woon dayoo ci bew la nga xam ne mooy ab delluwaay laabisiina fiiha ahqaaba ñu sax ca jahannama boobee jamono yu tegaloo laa yazuquuna fiiha bardan wala sharaaba duñu mos ca jahannama boobu benn sedd wala benn naan illa xamima lu dul ndox moo xam ni fa tàngaay bi yem yegg na fa wa xasaaqa ak dëtt ak deret ak rangoon yiy génne ca waa sawara muy xasaaq loolu la ñuy naan jazaan wifaaqa lii nekkoon fay gu dëppoog seeni jëf innahum kaanu laa yarjuuna xisaaba ñoom day nekkoon nañ yaakaaruñu du nekkuñu woon di yaakaar ne daañ leen masa taxawal régler leen ci seen kanamu borom xisaab leen wa kazzabu bi ayatina kizzaba weddi woon nañ suñu aaya ya ak weddi wa kulla shay'in ahsaynahu kitaaba doonte ne bépp mbir bu mu mën a doon ñun yàlla peeg nañ ko ci téere ci ci ci bind ci ab téere fa zuuqu falan nazidakum illa azaba mos leen duñu leen dolli lu dul mbugal mbokk suñu boroom nee na bis bi muy àtte ay jaamam rendez-vous la boo xam ni fixé nañ ko fixé place ba caw bu keroogee kenn du manki su ko defee yàlla dana àtte digganteem ak i jaamam dana àtte diggante jaam yi ci seen bopp bépp tooñ gu amoon ci kaw suuf suñu boroom yàlla dana ko régler yowmal qiyaama kañu tooñoon ñu delloo ko ay àqam borom bi nee na mooy bis bi ñuy ëf ci béjjén bi asuur yonent bi alayhi salaam nee na dafa yor forme béjjén boo xam ne ëmb na asamaan yi suñu borom jox na ko malaaka bu tudd israfil kooku moo koy nar a ëf ci kattanu yàlla mboolem lu nekk ci as asamaan yeeg suuf jaxasoo daa di doon dóom bis bu neexee yàlla mu ëffaat ko mboolem li nekkoon ci kaw suuf dekki suñu borom atte leen borom bi nee na ba keroogee di ngeen ñëw doon ay mbooloo su ko defee xeet yi tegaloo xeetu yi àndoon ak aadam ñi àndoon ak nuux ñi àndoon ak babaa xeet yi mujj ñëw ànd ak suñu yonent muhammad alayhi salaatu wasalaam ñépp teew kenn du manqué borom boobu ni keroog la ñuy ubbi asamaan yi mu nekk ay bunt malaaka yi jóge kaw asamaan moo tax ñëw na ci xadiisu suur bu gudd boobee asamaanu benneel la malaaka yi jëkk a wàcc asamaanu ñaareel topp ci asamaan bu nekk ëpp ne moroomam ni malaaka yi ëppe waa suuf ñu nekk kon safan safan wër doomu aadama yi ca la suñu borom ñëw di àtte ay jaamam borom bi ne gis nga montagne yii dees na ko doxal bu doon da nga koo sori da ngay jàpp ne lee de montagne la waaye boo duggoon ci biir ndekete pënd la ay mokk la rumbax ba nekk pënd te mbokk montagne ak ko xam luy montagne la koy def poussière loolu lu rëy la borom boobu subhanahu wa taala nag ne sawara day mi ngi nii moo nar a nekk ëkkuwaay bi mbokk ëkkuwaay mooy yoon bi ñëpp di jaar fa ngay ëkkoo agresseur yi fa la ñuy taxaw sawara nag mbokk amul benn doomu aadama lu dul dana fa jaar suñ borom nee na wa in minkum illa waariduha ñéppay jaar kaw sawara su ko defee borom bi nag ne summa nunajji lazina taqaw wa nazuru zalimina fiha jisiya ñi nga xam ne dañu ragaloon yàlla suñu borom yàlla musal leen ñu daal di jàll ñoom yàlla na yàlla boole ñu ca ña ca des moom daal di pëtëx ci biir sawara waaye kenn du rëcc ñépp ay jaar biir sawara mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñi jéggi woon dayoo ay la leen yàlla gëmloo gëmuñu ko lam leen jëfloo jëfuñu ko lam leen tere woon def nañ ko ak taaxiin mu ne ñoom foofu mooy seen delluwaay ñoom maaba amma ñi ragaloon yàlla ñoom jàll ñoom buñ demee daañ fa sax jamono ci kaw jamono ca mooy jamono yu dul dagg jamais ahqaaban jamono la yu dul dagg jamais te mbokk sawara du jeex mukk comme ni nga xamee ni ajjana du jeex mukk ni ngi noonu waaw loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax ci lii xaar doomu aadama yi yowmal qiyaama mu ne duñu mos ci biir sawara lenn loo xam ne nii lu sedd la duñ ko fa gis duñ fa am ak naan lu dul xaniim xaniim ndax la moo xam ne yàlla nga ko waajal yowmal qiyaama yéeféer yi heure buñ ko jubee suñ borom nee na yashil wujuh day ñori seen deru kanam ya te et pourtant du tee daan ci naan amma gassaaq waxoon nañ ko ci bind yi passé yonent bi alayhi salaam ne bu doon benn toq gassaaq lañ jëloon sànni ko ci géej yi nekk kaw suuf mboolem ñi nekk ci kaw suuf dootuñu mën a noyeeti mboolem lu ñu yoroon day nekk lu yàqu ci benn toq gassaaq xoolal nag ki nga xam ne loolu mooy nekk ak naanam yal na yàlla musal ñu ci borom boobu subhanahu wa taala nag ne moo ne de lii pay la gu méngoog lañ doon jëf yàlla leen bindoon wërsëgaloon leen sant leen ñu jaamu ko ñu lànk kaari kon lii pay la gu méngoog seeni jëf yaakaaruñu woon ne dañ leen xisaab yowmal qiyaama ba lu leen neexoon def amma yow julit da ngay gëm ne man kat lépp lu ma def ci kaw suuf daañ ma ko laaj yowmal qiyaama mi ngi noonu loolu lam la la yóbbu mooy fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ki yaakaar dañ ko xisaab yowmal qiyaama day def lu baax ca du bokkaale ak boroomam borom bi nee na it yéeféer yi dañ doon weddi samay aaya ak weddi gu tar ca moo ne day lépp loo xam ne jëfoon nañ ko bind nañ ko ci ab téere mi ngi leen di xaar ku ci dekk ñëw ñu ne la sa téere ngi nii tey doy nga di sayda sa bopp te it mbokk julit xam leen ne képp kenn ci ñun am na téere bu koy xaar yowmal qiyaama téere boo xam ne nii da nga ci am ñaari page ci suba ñaari page ci ngoon loolu mooy daje ba nekk téere yowmal qiyaama su ko defee suñu borom xisaab la ci loolu borom bi nag ne leen mos leen seen mbugal a ngoog duñu leen dolli lu dul mbugal am na borom xam-xam yu ne aaye bi moo gën a tar ci waa sawara ca mooy mbugal mi li muy tar tar day dolli rek lañ koy def ca mbokk mi ngi noonu aljanna day gën a neex sawara day gën a metti yal na yàlla musul ñi ci sawara
inna lilmuttaqina mafada حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولكن لابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا ذهبت يداه ويقول فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا barakallahu fiik suñu borom mu ne inna lil muttaqina mafaza dana ñeel ñi ragaloon seen borom day ak texe xadaaiqa wa anaaba mu nekk ay jardin ak ay raisin wa kawaiba atraaba nekkit ay janq yu yemoo ci ay at kawaib mooy janq ya nga xam ne dem nañ ba seen ween ya mat loolu la arab di wax kawaib ba muy jàngoo kaayib sunu borom mu ne wa kaasan dihaqa dana leen fa ñeel ay kaasi sangara yoo xam ne yu fees dell la laa yasmauna fiha lahuwan wala kizaaba duñu dégg ci àjjana jooje benn puukare wala lenn loo xam ne ay fen lay doon jazaa min rabbik lii lépp nekk pay gu bawoo ci sa borom ataan xisaaba mu nekk may goo xam ne may la gu ñu nattale rabbi samawati wal ard mooy borom asamaan yi ak suuf wa ma baynahuma arrahman mooy borom la ca diggante ba mooy borom yërmaande ja laa yamlikuuna minhu xitaaba nit ñi day duñu moom ci moom wax du ñuy mën a wax ak moom wax du ñuy wax yowma alqiyaama yowma yaqumu ruuxu walmalaikatu saffa bis bi nga xam ne ruux dana ñëw muy jibril wal malaikatu saffa malaaka yépp nekk ay rang laa yatakallamuun kenn ci ñoom du wax illa man azina lahu rahman lu dul koo xam ne jox na ko ndigal buur bu bëri yërmande boobee wa qaala sawaaba cam wax la nga xam ne mooy wax ju jub wax ju dëggu dalika al yawmu al xaq lii de mooy bisub dëgg ba faman shaa ittaxaza ila rabbihi maaba ku mu soob day na jàpp jëm ca boroomam ab delluwaay inna anzarnaakum azaban qariba ñun de ñu ngi leen di xuppi ci mbugal moo xam ne mu jege la yawma yanzuru almaru ma qaddamat yadaa bis ba nga xam ne nit dana xool jëm ca la nga xam ne moom la jiital ay loxoom wa yaqulu alkaafiru ya laytani kuntu turaba yéefér bu moom taxaw naan ak a neexoon ma nekkoon suuf mi ngi noonu mbokk suñu boroom nee nañu ragaloon yàlla texe dana leen ñeel ñan mooy ñi ragaloon yàlla mooy ñi ko doon jaamu bokkaale wuñu ko defoon ay ndigalam bàyyi ay tereem mu ne ñii day texe ga dana leen ñeel suñ ñëwee jardin yaa ngi leen di xaar raisin yaa ngi leen di xaar te raisin bokk ci li gën a neex bokk ci yi gën a neex yu doomu aadama di lekk ci kaw suuf la nga xamee ne mooy seen ngóor googe borom baa ngi leen fa waajal ay jànq yoo xam ne ñoo yemoo ci at te jànq yooyu ñaar lañu mooy ña yàlla defere ci ajjana muy xóorul iin yi yàlla defare ci ajjana ak ñi nga xam ne dañ doon dund ci kaw suuf même bu doon bi ñuy dee téeméeri at ak juróom-ñaar fukk lañu amit suñ borom da leen di delloo ba baa fi janq di màgge ba mag sëkk foofu âge boobu la ñuy yem jigéeni ajjana yépp it ñooy yem âge comme góori ajjana nañuy yemee âge ndax xam ngeen lii di bànneex ak fo ka nga yemal âge nga ko mën a defal waaye bu dee kii daa am juróom-ñaar fukki at kii am fukki at ak juróom-ñaar loolu du sotti looloo tax àjjana ay dafa nekk ñépp ñooy yem ay jeunes la ñuy doon mi ngi noonu ay jeunes la ñuy doon jigéen ñi ay janq la ñuy doon su ko defee noos ga fooga mi ngi noonu dañuy doon ñu yemoo borom boobu subhanahu wa taala daa di ne sàngara sama nga leen fay xaar waxoon nañ leen arab bu ne kaas lu ci bëri ma ngi ci jublu mooy sàngara donte ne kaas moom mooy kaas comme ni ngeen ko xamee rek di xaaqa soo ko waxee xale dana la jaaxal sàngara na am mbokk sàngara mooy li gën a neex li ñuy naan ci kaw suuf tey jii buñ la waxoon benn bitam champagne la muy jar da ngay dar sa gémmiñ lu tax yàlla araamal ko ci ñun mooy sàngara àdduna boo ko naanee mu wëlbati sa xel wëlbati sa biir indi la ay feebar amma jàng nañu démb suñu borom di wax waa àjjana yàlla da leen di may sharaban tahura naan goo xam ne dafa laab lenn luy lor nekku ca borom bi subhanahu wa taala ne àjjana ko fa nekk doo dégg lenn luy puukare wala lenn luy fen lu lay déranger beneen aaya ba njàngoon ca waaqia mu ne illa qiilan salaaman salaama jàmm rek ngay dégg lu la neex rek ngay dégg xam nga ñu doomu aadama mën na tiim ay ganaaram di lekk tiim dekooram ñit wax ko benn baat rek mu daal di suur amma nag àllaaxira loolu amu fa doo dégg lu dul lu la neex borom bi nee na lii pay la guy bawoo ci yàlla jazaa min rabbik pay la guy bawoo ci sa borom te mbokk xam nañ ni buñ ne président de la république dafa invité jàpp nañ ni invitation ba boo demul li da nga xam ne neex na waaw mi ana borom asamaan ak suuf nag nee na moo fay loolu ay jaamam mu nekk may goo xam ne may la gu ñu réglé ataan xisaaba ca mbokk tey benn waay bu dajeeg yow ne la dama bëggoon nga dimbali ma ci dara man ngaa làmb sa poos rek loo jëkk a daj jox ko amma boo amoon kilifa goo bëgg a defal teraanga da nga xalaat naa ko jox lii naa ko jox lii naa ko jox lii ba bàyyi ngay jàpp la nga xam ne daal moo méngoo ak moom nga dog ko jox loolu la ñuy wax may gu ñu réglé naka noonu it waa aljanna mbokk téeméeri daraja la daraja bu nekk am nga may goo yeeyoo te liggéey ba nga xam ne doon nga ko liggéey ci kaw suuf centième degré quatre-vingt-dix-neuvième quatre-vingt-quinze ila axiri ba baa première classe mooy firdawsil aala fa la yonent yi di dëkkee ak shuhadaa yi ak ña soob yàlla ci saalixiin yàlla na yàlla boole ñu ca ko defee daraja bu nekk suñu borom jox ko ataa an xisaaba may gu méngoo la nga xam ne moom la jëf borom boobu nag ne ki woote ngan googu mooy borom bi bind asamaan yi moo ko moom it mooy ci bind suuf te moo ko moom li nekk ci diggante bi moo ko moom ca mooy borom yërmaande bi arrahman yonent bi alayhi salaam ne yàlla dafa bind yërmaande xaaj ko téeméeri xaaj benn xaaj ba mu wàcce ko ci àdduna séddale ko ay jaamam nit jinne bàyyuma la séddale benn bi juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent mi ngi ko garde waajal ko waa aljanna looloo tax waa aljanna yërmaande bay nekk ci ñoom kenn du feebar kenn du jaaxle kenn du tiisu kenn du am problème kenn du dee ila xit yërmaande ji mat sëkk lay doon borom boobu nag ne keroog àllaaxira amul kenn koo xam ne dina ñëw di mën a wax ci yàlla xanaa lu dul ku yàlla jox ndigal moo tax mu ne kenn du wax mu daal di fedd li ne mooy bis bi nga xam ne jibril dina ñëw ca mbokk jibril alayhi salaam moom la yàlla bind mu nekk kilifay malaaka yi nekk seen chef gën caa tedd suñ borom taggo ko ne mutain samma amin ca kaw asamaan ya malaaka yi ay ndigalam la ñuy déglu ca yàlla lu muy digle jibril la koy wax jibril moo koy wàcc ci malaaka yi jibril dina taxaw malaaka yi taxaw doonte ne teraanga boobu itamit yàlla dana ko jagleel xeetu lislaam ak mu nekk benn yoon at mu nekk benn guddi ci guddi yi yàlla dana yónni jibril alayhi salaam mu wàcc ci kaw suuf ànd ak malaaka yi ci guddik laylatul qadr ànd ak jullit ñi di sabbal yàlla di ànd ak ñoom di nangu seeni ñaan di amin seeni ñaan ba baa fajar di jot yàlla na yàlla dëppale ñu ak laylatul qadr boo gisee fukki guddi yi nit ñi bàyyi seeni kër ñu dajaloo ci néegi yàlla yi mooy ngir dabu yàlla déppale leen ak laylatul qadr guddi gu mag goog nga xam ne jibril alayhi salaam day ñëw ci kaw suuf ànd ak malaaka yi borom bi borom bi nee na ba këroogee kenn du wax xanaa lu dul ko yàlla jox ndigal ca buy wax day wax wax bu jub te loolu it mbokk yowmal qiyaama noonu lay demee bu nit ñi taxawee di xaar yàlla atte jaam yi nit ñi daan jëm ci aadama alayhi salaam aadama ndax loo ñëw wax ak sunu borom mu ne loolu ñemewuma ko di dem ci nuux ñemewuma ko ibrahim naka noonu muusa naka noonu isa ba isa moo leen di wax ni dem leen ci muhammad moom rek lañu yaakaar ne moo ko man tey suñu yeneen it ba mbooloo mi ñëw ci moom bu wax ko day dem daal di sujud ci kanamu borom bi jàll wa ala suñ borom seetaan ko la ko soob doog na ko muhammad jógal ñaanal ñu may la ràmmul ñu may la nga ràmm kon kenn du wax lu dul ci ndigalam ca buy waxit day wax lu yàlla gërëm suñu borom mu ne loolu mooy dëgg-dëgg bis bisub dëgg baa ngi noonu doomu aadama bari ngay bis bis bi nga juddoo ah bis bi ngay mariage bis bi ngay tukki ba ngay ñëw bis ba ngay dee waaye bis bi jara waajal dëgg-dëgg mooy bis bi ngay dajeeg sa borom li nga noonu bis bi ngay dajeeg sa borom loolu mooy dëgg-dëgg bis ba borom boobu subhanahu wa taala ne kum neex nag léegi nga jël yoon boo jëme ci sa borom yoonu booy delloo sa borom mbokk sa borom fokk nga delloo fa ngalluwaay yow mi borom xel jaaral ca yoon wu mu gërëm ca yoon woowu mooy lan mooy yoonu alxuraan ak sunna boo jaaree ci alxuraan ak sunna ba loolee dee fekk la ci ñu delloo la sa borom day soo yegsee yàlla defal la mafaasa ndax da nga bokk minal muttaqiin suñu borom nag mu ne ay yéen doomu aadama yi maa ngi leen di xuppe di leen tiital ci mbugal moo xam ne mu jege la mbugal la mu jege na am ndax mbokk jullit doomu aadama heure buy dee la mbugalam di commencé su jaarul fa neex yàlla ca loolu moom la ñuy jàng ci saar bii di ñëw maa ngi leen di jege xuppee mbugal mu jege ca naam alaxira bu soree ci yow it lu jege la ci yàlla jalla waala ca bi yàlla wàcce ay beeg léegi junni at ak ñeenti téeméer lu topp wàññeeku na ca kon alaxira bu jege woon saxaaba ya ñun ñun gën nañoo jege mu ne mooy gis bi nga xam ne doomu aadama daañ ko wan mu jàkkaarloo nag lam jiitaloon la ca baax ak la ca baaxul ca mbokk jullit loolu kumpa la ci suñ jamono tey jii amul kenn ci ñun ko xam ndax yàlla nangul na ko ay jëfam wala nangulu ko amul kenn ci ñun ko xam ndax yàlla baal na ko ay bakkaaram wala baalu ko amma yowmal qiyaama nag te ngay dem ñu jox la si résultat nga jàkkaarloog moom gis la nga xam ne moom ngay mérito suñu borom nee na bu keroogee yéeféer bi dana wax aka neexoon ma nekk suuf ndax mbokk suñu borom bu ñuy dekkal nee na kama badana awala xalqin nuiduhu waadan alayna yàlla lum mës a bind da koy bindaat mboolem bàyyi ma yu mës a jaar ci kaw suuf les milliards de milliards de luy naaw milliard luy daw milliard luy rampe di ilaaxiri jaan yaag yépp yépp la yàlla di delloo si bésu penc di nekk lu ñàng suñu borom yàlla atte seen diggante ci maandu teem atte seen diggante ci maandu teem gannaaw ba nag ñoom du ñu dem aljanna du ñu dem sawara suñu borom ne dellu leen nekk suuf ñoom ñu delluwaat nekk suuf mu def nag ñi te génne ñoom la yàlla di atte ñi yeyoo àjjana dem àjjana ñi yeyoo dem sawara dem sawara looloo tax yéeféer bi bu gisee ne moom kat sawara la jëm te mu gis ne mbaamam mee ak xajam bee ñoom dellu nañ nekk poussière mu ne ay waay ak a neexoon ma nekkoon poussière ay ak a neexoon ma nekk bàyyu ma keroog la doomu aadama di ñee golo keroog la doomu aadama di ñee mbott moom la borom bi subhanahu wa taala di wax naan summa raddadnaahu asfala saafiliin doomu aadama bu jaarul fa neex yàlla yàlla dana ko delloo mu gën a suufe ñu suufe ndax ñooñu ñoom seen mbuñ mooy poussière amma moom day sa xalidina fiha fi naar loolu ma nekkoon jeexatul suratu amma insha allah ñu dal suratu naziat